Thierno euh, yow dirigé nga ministère de de de de l'énergie et des et des. Euh, des énergies renouvelables ministère du pétrole et du développement des énergies renouvelables euh, fan yii yëpp dafa am une information assez inquiétante mooy ne le géant britannique BP dafa bëgg a désengagé wu du gisement de Teranga Yaakaar nga xam ne mu ngi sekk mbir mi avec Cosmos énergie ak Petrosen alors. euh, désengagement bi est-ce que ça doit nous inquiéter parce que en même temps on nous fait miroiter une bonne nouvelle euh, en disant que Petrosen pourrait euh, augmenter ses parts et et, et devenir euh, majoritaire pour euh, pour le gisement de Teranga Teranga Yakar c'est un dossier qui est passé entre tes alors ban ban ban lan sa sentence une bonne nouvelle est-ce qu'on est-ce que encore des géants pétroliers euh, se jour de nous qu'est-ce qui se passe. bon comme ñëpp laa jàngatee laa déggee mbir mi nag amaguma ci information yu très poussée te waroon nañu jox public bi information ci li ma liir nag. ci en tout cas Financial ak Bloomberg. Euh, joxe nañ des ces pistes d'information là. waaw non loolu lu am la danaa ci ñëw damay jël précaution pour wax ni que d'abord ñun sénégalais yi mu yitteel ñu ko jàngee ci Africa Intelligence wala Bloomberg wala Financial dañ ko war a jàngee ci. suñu ministre euh, du du communiqué officiellement du gouvernement du Sénégal et puis ñu war a xam-xam ñu expliquer ñu lan moo xew. c'est la moindre des choses loolu mooy transparence ci li ma dégg Cosmos dafa ne. mbir mi intéressé tu ko. non BP. dafa ne mbir mi intéressé tu ko léegi day génn ci génn boobu sax amaana moom laaju ci dara dina leen bàyyil mbir mi ci ci naka noonu le gouvernement Sénégal amaana ci 60 pour yu bépp yoroon gouvernement Sénégal. amaana da ciy jëlaat benn partie jox ko. Euh, Petrosen beneen pa beneen pàcc bi waa Cosmos féetewoo ko. loolu tamit war nañu expliquer naka la suñu alal la ak ñaata lañ ci war a dugal wala ñaata lañ ci war a gagné wala ñaata lañ ci war a perte mu leer nañu xam nga ak lu waral ñu jël ci bu dee 15 pour cent lañ ci nar a jël wala 20 pour cent wala 30 pour cent. Petrosen pourrait monter à 33 pour cent. cest à ultimement ci information yi ma nu ma ko jàngatee mooy 60 pour cent yu PP yu yoroon da koy bàyyee gouvernement du Sénégal gouvernement du Sénégal ak. Cosmos BP daf koy bàyyee Cosmos donc ak Petrosen fii ñu toll ni Petrosen quinze pour cent la ciy jël dem vingt cinq pour cent Cosmos nag mu ngi wëri ñeneen ñu mu àndal pour mun a développer jugement boobu bu keneen kooku ñëwee ñoom dinañ yor ñoom Cosmos dañuy jël 33 pour cent koo koy jël 33 pour cent en ce moment. Petrosen mun a yéeg ba 34 pour cent à peu près ci schéma boobu la ñu nekk noonu loolu war nañ ko expliquer Sénégalais yi wax lu tax parce que yaakaar teraanga bi gaz bi dañu ne woon pour Sénégal la maanaam pour l'électricité pour euh, essentiellement électricité ak produire ci peut-être euh, engrais ak leneen ak leneen kon war nañu expliquer am déet donc ñun ñoom moom suñu mbir d'abord bala Bloomberg bi di ci wax wala keneen war nañu leeralal ba mu leer nañ ak yan mooy enjeu yi lan mooy intérêt stratégique yi pour que même opposition gis nga bu doon réew moo xam ne euh, bu dee Israël la bu ñuy critiquer tant à juste titre mais am na ay informations sensibles même militaire dañ koy wax yenn gaawu opposition parce que dañu nar a jëlaat réew mi xam nga la la may fàttali affaire ArcelorMittal président Wade dafa tëb wax dara. naa def lii naa doxalee nii naa ñun ñu ñëw. en ñun ñu ñëw au pouvoir war a mottali dossier boobu wara a égaler dossier boobu <laughs> lan lañ def peut-être que les choix qu'on a fait sont diamétralement opposés à, à, la position de de Wade mais si on avait l'information si le public avait l'information si bu doon expert yëpp xam nañu lu xew tëj maintenant parenthèse boobu dama koy tëj nii man be demu beppee bettu ma. xam nga ba ñuy discuter négocier con kii en 2000 la bul fàttaliku bu leen fàttali que on a découvert le le dañu gaz bi ñu ngi ko gis en 2015 hmm? yaakaar teraanga 2015 la eh, eh, hmm? oui euh, ci avec pàcc Mauritanie bi Cosmos ñëw te Cosmos génnul Mauritanie war nañ wax pourquoi Cosmos mu ngi des ba tey GTA euh, BP plutôt BP mu ngi des ba tey GTA génnagul Mauritanie am na moom beneen jugement boo xam ne ci biir Mauritanie comme yaakaar teraanga nu mu nekkee Sénégal exclusivement am na beneen jugement bu nekk ci biir Mauritanie yëgagu ma ni génn na fa donc la ñu war a xam ñun sénégalais mooy lu tax mu bàyyi bu Sénégal kese mais bu ma waxee ni bett ma parce que ba ñu ñëw 2000 euh, ba ñu découvrir gaz 2015 dañu ñëwoon pour ñu mun ko ex dans les dix prochaines années dafay laaj processus bu gaaw trop nu ñu waxee accéléré tout à l'heure ak vitesse et précipitation man ma jëloon option yi comme lu guléet la nañu ñun jàngat bañ a tombe ci expérience et yi yeneen réew yi defoon yàkkamti pour produire ba nangu lu gars teg yëpp comme chemin amoon na yeneen major yu ñoon comme Exxon Mobil ñu ni ñoom gëmuñu nii war nañu mën a génne pétrole bi ak gaz bi en deux mille vingt deux deux mille vingt parce que dafa laaj ay processus bu gën a bu gën a kii BP rek moo ni woon man mun naa nangu naa loolu moo taxoon BP ànd ak Cosmos dugg ci GTA mais peut-être moom GTA rek moo ko intéressé woon ba mu duggee GTA yaakaar teraanga peut-être ça l'intéressait moins ci sama gis-gis laay wax ci information yow amoon ci boobu. ba mu demee ba ci kanam mu génn ci parce que GTA GTA mooy bu ñu bokk ak Mauritaniens yi Grande Tortue Ahmeyim mooy bu ñu bokk ak Mauritaniens yi boobu ça va produire dinañ jaay gaz liquéfié bi à l'international ñoom BP ñoom ñoo ko ñoom ñoo signé contrat presque ak ñaari état yi pour jënd ko di ko jaay mais fii dañu war a jaay gaz bi Senelec euh, wala Petrosen pour des besoins sénégalais est-ce que wóolu nañu Sénélec est-ce que wóolu nañu Petrosen en tant qu'entité sénégalaise pour mun a crédible pour payer à long terme ak remous yi fi am ak immixtion politique bi am ci gestion wu entreprise bi ak mal gouvernance bi am ci entreprise publique gu sénégalaise yi est-ce que wóolu nañ leen suffisamment loolu tax tamit xam boo xoolee dans les dans dans la vie tout a un prix bu fekkee da ngeen bëgg a nekk seen réew di doxal nu leen neexee di def nu leen neexee di nommer ay directeurs généraux nu leen neexee comme ni ma wax ci aéroport international bi aéroport Abidjan mu ngi ñuy rawan ah. oui mais le DG de Senelec il a la légitimité c'est pas du du ku ñu foree fa la ñëw nommé ko c'est une promotion interne non non il a été le DG de Senelec sa compétence ne fait aucun doute mais moi j'étais bien placé en tant que ministre ayant travaillé avec un autre DG de Senelec dont la compétence ne fait aucun doute pour oui. pour pour xam ni que quatre-vingts pour cent des des des actes qu'il pose c'est souvent des actes dictés. d'où kan kan kan. Euh, le DG qui pose des actes dictés. le DG je veux dire. l'actuel DG. de manière générale le DG de Sénélec. leneen bu ñu signé contrat ak euh, West African Energy euh, partenaire yooyu ñu signé nga def ne ñoom ñoo dem rek ni dañuy def bon une recherche de. de partenariat pour liggéey à partir de suñu gaz bi def fi courant ci anam yu gën a yomb ak yu gën a ñoŋ ak yu gën a baax ci Sénégal dafa ne noonu la demee déet dafa am ñaar ba ñett ñu dem seeti président de la République ne affaire bi intéressé nañu mun nañu indi ay partenaires tabaxal leen fi ay usines voilà nos conditions ñu leen dem leen eh bi tey kaay discuter ak ñii ñu discuter après ils vont forcément trouver un accord bancal pour le Sénégal mais noonu la demee donc bu ñu jàpp affaire bi ni que gis nga ni ñu ni suñu justice doxee suñu njàng bi njàngale bi di ko dox parce que l'université fermée depuis combien de mois suñu circulation bi di ko doxee bala nga ñëw ci université sur ce dossier de l'énergie là euh, mu mel ni inquiétude dina dikkal sénégalais yi doon am yaakaar naan nañu muñ l'augmentation des prix de l'électricité d'ici deux mille vingt quatre deux mille vingt cinq les choses vont changer avec l'exploitation euh, de ce de ce de ce gisement la parce que gisement boobu dañ ko destiné euh, à la question de l'énergie euh, au Sénégal alors lan moo expliqué euh, Sénélec était sur, euh, sur sur une phase ascendante Sénégal commencé woon na di def jéego yu am solo ci wàllu énergie mais pourquoi est-ce que état teelul teguñu ay mécanisme pour que état rocci subvention bi et que Sénélec ak le ministère de l'énergie développer des mécanismes développer des stratégies ba nga xam ne euh, du ñu dundeeti subvention euh, boite bi dina mën a dund sur ses ressources dina mën a jaay euh, l'électricité à un prix acceptable au au au au Sénégalais qu'est-ce où est-ce qu'on raté le coche on parce que waroon nañu wax ci subvention bi je me rappelle déjà du temps de Matar Cissé Matar Cissé commencé woon na di communiquer sur ça naan euh, cette année Sénélec n'a pas eu besoin euh, de subvention ñu jékki-jékki beneen anne bi Sénélec a même fait un bénéfice un bond important mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps xam nga il faut faire très attention ba ma nekkee ministre l'énergie fàtte naa date bi mais bind naa ko ci 2015 ba 2017 mais def naa 2016 li may wax ni conseil des ministres et maa wax Pape Ablaye Seck mu may déglu ministre de l' agriculture Mary Teuw mu may dégg ministre euh, à l' époque de de de dans l' enseignement supérieur de la recherche scientifique ak d' autres ministres même euh, le ministre actuel premier ministre bu ma woon ci conseil des ministres bi dama présenter plan de développement de Sénélec wax ni. horizon. horizon deux mille trente cinq wax ni au rythme ni ñuy doxee ak ni ñuy defee choix stratégique yi. yi ñu fa fekk ñun déjà sant dinaa ci dinaa ñëw ci détails yi boo bëggee courant bi day yokk chaque année lépp nu ñuy nu ñuy nu ñuy nu ñuy euh, produire courant bi day gën di yokku bu gaz bi ñëwee dina xaw a wàññeeku mais wàññeeku bu ñuy séntu bi wàññ du du demee noonu te du man maa tëju sama bureau rek def ko de dama amoon ay ingénieurs yu nekkoon foofu si sama kii liggéey ak données Sénélec waxtaan ak Sénélec dem conseil des ministres wax ko xam nga lu waral lool parce que ñun suñu suñu état amul démarche rationnelle bu tegee ci loo xam ne dañuy xool càmbar xool li gën même bu dee am naa ci benn intérêt bu ndaw walla benn kii bu ndaw après naa xool mais d'abord damay damay tabax loo xam ne moo gën ci réew mi pour ëllëg naa naa comparé ci benn réew bu ñu wër après mais dañu nii centrale bi damay jël un ami qui fait la politique ou quelqu'un un, un, un opposant qui la politique bu am projet am ñu ñu jàppale ko ba mu mu jël centrale solaire bi importe peu ndax mu sa nekk ci énergie importe peu ndax xam na dara ci énergie wala am na financement bi moom xam nga lan lay def am na benn ancien ministre d'État ah de Wade bu ñu defoon projet comme ça xam nga lan lay def day dem jël wuti ay partenaires yoo xam ne da leen di refiler kii bi moyennant peut-être commission bu bu ñuy doxalee noonu est-ce que soxla ñu centrale solaire bi ou pas est-ce que soxla nañu centralu kii bi ou pas ndax soxla nañu centralu éolienne bi à ce niveau de cent cinquante mégas est-ce que soxla nañu ci ou pas benn étude bu cohérente boo xam ne c'est global muy tenir compte production du transport distribution amut woon donc bilan des de de de de l'exercice naam mun nañu wax ni tey amatuñu coupure d'électricité mais à quel prix on a surinvesti dans certains secteurs de la production et pas forcément ci technologie bu gën on disait oui on a un bon mix énergétique de trente de trente pour cent euh, solaire xaw ma lan mais est-ce que c'est ça qui est économiquement rentable on aurait dû dire qu'on a bu doon euh, un économiste j'ai fait un peu d'économie à la fac j'ai une licence donc l'économiste dit que on arrive à satisfaire nos besoins au prix le plus compétitif possible loolu la Côte d'Ivoire di def tey l'énergie du Sénégal coûte beaucoup plus cher le kilowattheure du au Sénégal coûte beaucoup plus cher que le kilowattheure en Côte d'Ivoire le coût de la vie au Sénégal coûte plus cher que le coût la vie en Côte d'Ivoire à peu près même durée de mandat même vision de changer leur pays programme Sénégal émergent programme Côte d'Ivoire émergent à peu près les mêmes trucs mais tey Côte d'Ivoire boo demee pourquoi ay entreprises yu bëri fa la ñuy dem toog pourquoi beaucoup de d'entreprises qui leur siège naturel devrait être au Sénégal ñu ngi Côte d'Ivoire alors que foofu le risque pays lié à l'insécurité est plus élevé mais parce que seen énergie moo gën a yomb ñoom ñoo gën a yée néewle embouteillage lool coût de loyer bi moo gën a yomb fuuf y a l'injustice maanaam inexion justice bi même dans le dans dans dans dans le business est moins flagrant est moins flagrante donc mais les gens ils préfèrent aller en Côte d'Ivoire où l'environnement est plus sain.